waa parcelle sama baat si kaw ma ne bala ma leen di taggal seen bër bi laa wax dama bëgg ngeen laal kër yi képp koo xam ne da ngay bëggee Modou Lo rek laalal ma kër yi mu bàkkal leen seen bër bi barke ma ne dëgg neexul ki muy Modou ñu naan ko xarañ loo ki nga xamante ba muy dugg si làmb dañoo ne du daan poids munu nekk roi des arènes ndax taay bi Modou ñëw ne leen man maay def l'impossibilité jëw wane boppam poids lourd bu mu jàpp daal la barke laaj Fallou Mbacke ku mu doxla doole daan la Modou Lo billaay wallaay ah. ñëw ba nekk roi des arènes ndax fula ba jom ja cinq-cinq bët ñëw daan booy yoo xamante ñoo ub làmb boo ne Ama Baldé rek ub na làmb fa la jeexee nga ñëwaat ne Boy Niang ki daan Balla gay 2 loolu neexu ba neexul waaye muuro yaay ndaanaan bilay muuro yaay ndaanaan barke laa ju Fallou Mbacké félicitation